jàngukaay bi ak ci réew mi syndicat yi ak étudiants yi ak yenn parents d'élèves demandé nañ ko retarder lu maximum ñu retardé ko euh, office du bac ak ñi nga xam ne ñoo seq mbir mi ñu leen ciy gërëm di leen sant parce que euh, bu fekkee départ bi yaakaaroo nañ yaakaaruñu woon ne dina mën a sotti mais ñoom fexe nañu ba mu sotti mm-hmm. loolu lu am solo la ma leen ciy gërëm di leen sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci bac yi di félicité tamit jàng euh, élèves yi nga xam ne am nañu bag ren bac bi am nañu lu toll ci soixante huit mille cinq cent euh, bacheliers euh, yu nga xam ne am na ci quatre vingt quatorze yi nga xam ne am nañu mention très bien ëpp ci juróom-ñetti téeméer am nañ ci mention bien et bu ñu dajalee mention yëpp àgg na ci lu toll juróom benn junni mention hmm. euh, à peu près mun nañu wax ne autour de huit pour cent des bacheliers am na ñu mention hmm. loolu di jéego bu nga xam ne mun nañ ci sant candidat yi mais sant ci tamit jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci classe yi di leen accompagner hmm. euh, ci situation bi ni mu demee muy jéego bu jëm kanam loolu am na léegi nag bu ñu defee bag ba pare li ci topp mooy fexe ñu orienter leen ñu jëm ci université ci jàng jàng mu kawe Euh, am na université ay université am na ay établissement public d'enseignement supérieur mais am na tamit lu ñuy wax BTS université yi ñoom am nañu ay faculté mbaa ay UFR ak ay département yi nga xam ne foofu la ñuy orienté étudiants yi euh, en tout cas comme niñ ko jàppee euh, bii mooy ñetteel bi at bi ku am bac ci Sénégal dinañ la orienté ci établissement bu nga xam ne gouvernement bi moo ko moom loolu lu am solo la euh, ren nee naa soixante huit mille la euh, jàpp nañu ne bu ñu respecté critères yi dinañu euh, àgg mën nañu àgg ci soixante cinq mille bacheliers yu nga xam ne moom la ñuy orienté daaw soixante six mille bacheliers la ñu orienté mm-hmm. donc defe naa capacité yi ci université yi mm-hmm. bu ñu am nay effort yu ñu war a def mais bu ñu defee effort yi ñëpp dinañ leen orienté te loolu am naa ci xel mu dal. kon matuwaay yëpp jël nañu ko. waaw euh, commission comme xam nga mm-hmm. orientation yi. Mm-hmm. dafa li ko li ko li ko seq. Mm-hmm. ci règle loi ak règlement. mooy ministère de l'enseignement supérieur. moom ak instance académique yi nekk ci université yi. ñoom ñooy dajaloo. tegoo ci université bu nekk. lan la mën a dalal ci ay étudiants. suñu étude suñu bac bi nag dafa am nu mu nu mu tëddee. parce que bagu Sénégal daf li ñu am ci problème mooy dañoo am bac scientifique yi. nga xam ne lim bi rëyul lool. lim bi moo gën a tuuti capacité yi université yi am pour dalal leen. am bac littéraire. bac littéraire yi nga xam ne ñoom seen lim dafa am àgg na fu nga xam ne il faut ñu xool naka lañ leen di dugg dalale ci université yi. Mm-hmm. Euh, parce que dalal bi lu tax ma ne nañu xool parce que mun il faut ñu gérer tamit. d'accord euh, ni flux yi ni ñuy duggee ak naka la ñuy génnee. absolument mais université yi commence am nañ ci expérience bu baax ñu ngi ciy liggéey. d'accord loolu tamit loolu moo tax ma ne la commission bi nag mu ngi liggéey. mu ngi ciy liggéey commission bi mu ngi liggéey bu ñu paree man dinañ ma jéggal seen seeni conclusion. d'accord. Euh, tamit ñu xool ak instance académique yi nga xam ne man déjà commencé naa di leen recevoir parce que maa ngi recevoir doyen yi ak directeur du UFR université yëpp. Mm-hmm. ak recteur yi pour ñu xool naka la ñuy liggéeyee. mais defe naa seen taxawaay. Mm-hmm. bu waaj wuutewul ak taxawaayu ñaari at yi ci ginnaaw. tout loolu am na solo xëy na daan ko yaatal ci biir waxtaan bi dañuy jox kàddu gi Ndeye Dimet moom it mu tabbi ci euh, waxtaan bi ginnaaw bañ la nuyoo. jërëjëf Mouhamed man aussi ma lay nuyu baax a baax di nuyu Fatou Abdou. Mm-hmm. nuyu monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne am mbégte loolu dalal ko fii ci suñu plateau. Mm-hmm. alors monsieur le ministre euh, dégg nañ la nga expliqué ci situation nouveau bachelier. mais damay taxaw foofu tuuti ñaata. élèves yu am bac ci 2019 ak 2020 ñoo des te kenn orienté wu leen. xam nga loolu wax naa ci waxaat amul orientation ni mu léngoo da ngay demander na ñu la dangay ngay demander yow dangay ngay demander. am nañu benn logiciel plateforme bu nga xam ne étudiant bi ci lay ñëw choisir fi mu bëgg jànge jàngee boobu yàgg na euh, am na ay at ay diir yu nga xam ne ñu ngi koy utiliser. Mm-hmm. boo ñëwee nga bindu ci ne da bëgguñu bëgg la. nga ne fii laa bëgg def université bi lii laa bëgg a def lii laa bëgg a def bu ma amul lii lii laa bëgg bu amul lii lii bëgg. képp ku def loolu orienté nañ kon fii ngay wax ak man ni ñëpp orienté non amul benn étudiant bu ñu orienté wul amul. ko hmm. soof ku nga xam ne. laajoon nañ la orienté euh, voilà man avant may toog ci plateau bi jokkoon nag ay étudiants. ñu may xamal ni ba tey am na ñoo xam ne kenn orienté wu leen. te yow aussi da nga toog ci plateau TFM Pape nga Ndiaye di wax ni treize étudiants moo desoon. te tu prends l'opinion à témoin que ni ku fekkente ne nii am nañu des tamit bu ñu ñëwee sa bureau di nga la jën seen problème mais gis nañu le lendemain étudiants yi dañu xëy dem foofu ñu leen monsieur le ministre dafa voyagé. dafa euh, déedéet déglu rek xam nga. Mhm. musuma wax ne am na lu des. Mhm. treize musuma wax am na treize bu des. mais man maa la seetaan télé. monsieur le ministre non waaw mën nañu ko jëlaat boo génnee. waatee dama la ne. Mhm. amul amul bachelier bu def demande. bu nga xam ne orienté wuñu la bi orientation yi pare ba ñu ne pare nañu orientation yi mhm. wax naa ko ci palateau waxaat ko ci plateau yi interpellé parents yi nekkul képp ku nga xam ne sa doom nee na la orienté wuñu ko mhm. na nga ñëw am nañu période contentieuse bu ñu ubbi képp ku nga xam ne orienté wuñu la nga ñëw ñu orienté la ma ne Pape nga Ndiaye ma ne ko ba ñu ñëwee ñi njëkk a ñëw bi ba ma ko waxee période boobu mhm. treize ñoo ci ñëw treize yi ci treize ñoom ñoo ci justifié ne duggoon nañ ci plateau bi ne mun nañ ne orienté wuñ leen treize ñoo ñëw laa wax waxuma ne ñoom la ñu orienté wul ba ñu treize yi ba ñu ñëwee ku ci nekk wane nañ la ne yow lii moo tax orienté wuñ la mais beesu loolu ñun ñu jël décision ñu jël décision ne ubbil nañ leen ISEP yi ku nga xam ne orienté wuñ la nga demandé ak nga bañ a demandé bu fekkee orienté wuñ la nga dem ci ISEP yi concours ISEP yi dinañu joxe instruction ñu faciliter leen ko. li ma ciy dellu si ci wax xam nga jàpp nañu def nañ fi marche ñu jàpp ay nit ñu nga xam ne dañ doon wax dañ doon défendre étudiants yi. Mhm. mais ñi ci jàpp ay étudiants yi lu nga xam ne am nañu bac depuis cinq ans. ñu ne leen léegi lu tax ngeen di wax ci turu étudiants yi ci bacheliers yi nga xam ne dañ leen di orienté ñu ne ñoom ça fait cinq ans. orienté wuñu leen woon ñoom ñoo doon responsable bachelier yi nga xam ne orienté wuñu leen woon ça fait cinq ans. kon boo bëlli loolu jox na leen mandat heure bu ñu waxee ne amul bag bu ñu orienté dañuy dox. xam nga fii li ma la wax ma ne la logiciel la. damaa ne nañu génne benn tur benn nit. d'accord ma waxaat ci non dañuy wax rek parce que. Mhm. Euh, dafay am lu nga xam ne dañ koy jàll. te ma taxaw fii tuuti parlement du Sénégal dafa jël. ne bachelier 2019 yëpp dañ leen di orienté dans les universités publiques. moo tax ma laaj la laaj. waaw bàyyil ba ma pare bàyyil ba ma pare bàyyil ba ma pare est-ce que ñëpp orienté leen. non j'ai dit que non loolu tontu naa ci. Mhm. très bien sama tontu du varié kon ñu jàll ci non dama non mais parce que da ngaa wax man tamit dinaa la wax lu. li ci am enjeu yi. Mhm. enjeu yi mooy orientation yi ci école publique bi ak ci privé yi orientation yi. d'accord maintenant enjeu bi mooy ñu orienté leen ci public. Mhm. ak ñu orienté leen ci privé. d'accord à chaque fois que ñu taxaw. ñu ne orientation pare na dem naa ci télé ne ku ñu orienté wul na nga ñëw. d'accord monsieur le mais doo ñëw. mais bu ñu demee ba mu jeex ba toog. Mhm. mbaa ñuy jëmaat ci orientation. d'accord nit ñi dañuy wax ne way université publique yi attanuñu orientation yi. Mhm. parce que bëgg nañu ñu orienté am na ñu bëgg ñu. orienté feneen loolu nag damay wax ne dafa jeex. ci gouvernement bi. d'accord amul possibilité. ñu orienter kenn ci dans le privé. yaa ngi wax ci privé yaa ngi wax ci danga may may rek. waaw mais allez-y non allez-y parce que question yi dafa bari te il faut que ñu évacuer ko. léegi daanelal foofu ñu dem ci Fatou. voilà s'il ah, yaa ngi wax ci université privée yi foofu laay des. tey. très rapidement gis nañu ni bor yi am na. 16 milliards les école privées yi lañ leen war a jox. fan ngeen ci toll. ci fay bi parce que am na étudiant aussi yu yuuxu ni jusqu'à présent ñu jël seen diplôme parce que état bi dafa amal école privée yi xaalis benn euh, ci fi nga jeexale mm-hmm. amul benn école privée bu am droit mm-hmm. retenir diplôme étudiant bu jàng ba pare di parce que état bi fay na la am état bi fayu la mm-hmm. kooku voie de fait la et que man ku ma ko ci indil preuve en tant que ministre de l'enseignement supérieur dinaa jël ay matuwaay bu fekkee ne dañuy dem ci yoon ñu dem ci yoon mais li ma yoon may dinaa ko jël ci matuwaay pour que loolu jeex. bor bi nag. maa ngi ñëw euh, du dangaa ne li nga dama leen fi nga jeexale lay commencé. Mhm. kon fi nga tàmbalee dinaa fa jeexale absolument bor bi dafa bëri wax loolu xam nga bor bi dafa bëri wax loolu fu ma dem daal ñu wax ma bor bi xam naa ne moom bor bi am na ñu koy défendre bu baree bari. Mhm. Euh, bor bi dama fekk ñu am benn. Euh, plan bu nga xam ne dañ koy réserver. lu tax ñu réserver ko ba ñuy orienté première fois bi ñuy orienté bachelier yi dañoo ne woon 3000 étudiants la ñuy orienté lu gën a bëri. dernière fois bi ñuy orienté bachelier 2000 2000 2000 2018. oui orienté nañu lu mot 30 000 bacheliers ci privé ci ay écoles yu baree bare. Mhm. ñun tey. am nañu ay preuves que ne étudiants yi ñu orienté ci université privée yi ak école privée yi. comme yi ñu orienté ci université publique yi du ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñooy jàngi dañuy arrêté dañuy am abandon. Mhm. parce que condition d' études yi da ngay jógee sa dëkk ak affaire bàyyi ma delloo Mouhamed Kaddu en tout cas je suis euh, damay tontu damay tontu. ma ne ba ci loolu. plan de résorption. dette bi ñu am. chaque année dinañu inscrire fi ñu toll nii. ñu ngi prévoir fay trois mille milliards ci. ay établissement d' enseignement supérieur privé. te loolu effort bu mag la bu gouvernement bi des. def parce que am na fu nga xam ne buñ fa taxawoon te ñoom xam nañu li may wax. Mhm. duñ leen fay mais gouvernement bi mooy dafay effort di leen fay. d'accord li ci am mooy dañuy vérifier écoles yi existé. Mhm. ak effort yi existé mhm. te léegi affaire bi léegi mu jeex. léegi mu jeex parce que fi ñu toll nii. à ren. mooy dernière vague bu nga xam ne bu dul ko redoubler. bu dul ko redoubler. doo déwén du am école privée étudiant. bu nga xam ne gouvernement bi moo lay fayal bu ci. très bien gouvernement bi jël na engagement dina fay bor bi yëpp. tout à fait mais tamit dinañ def contrôle yëpp. yu ñu war a def. très bien loolu leer na monsieur le ministre alors dañuy dem jox kàddu gi Fatou Abdou Ndiaye moom itam mu tàbbi ci waxtaan bi ginnaaw bañ la nuyoo. également monsieur le ministre mi ngi bëgg a miin seen show. waaw façon ñi ngi lay nuyu baax a baax di dalal ci ci ci plateau bi nuyu Ndeye Dimet euh, ñu avancer un peu ci li nga xamante ne mooy chantier yi euh, suñu waxee ci chantier yi nag dañuy wax ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu dippee les nouveaux bacheliers comme ni nga ko waxee engagement ngeen jëloon pour orienter tous les nouveaux bacheliers mais ngeen jëloon engagement également pour accompagner les universités du Sénégal bu ñu déggee SAES e mooy loolu nga xam ne waxoon ngeen ko ci wàllu moyen ne ngeen ko jàppale université yi amul bu ñu jëlee exemple Assane Seck bu Ziguinchor hmm. bu ñu jëlee fii université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru gis nañu vétusté li hmm. nga xam ne mooy amphithéâtre yi labo yi mais yeneen matuwaay yoo xamante ne ñàkk na est-ce que loolu mën nañ ci sukkandiku pour am ay université yoo xamante ne dina am performance fii ci réew Sénégal waaw xam nga bu fekkee wax la rek mooy waxante université yu Sénégal yu yi fi njëkk a nekk hmm. am na ay problème